salaamaaleykum gars yi j'espère que vous allez bien moi ça gars yi nag voilà balaa ñu continuer vidéo moo xam ne ngeen like bi ngeen partage voilà surtout geen abonné voilà bu dee ko benn chaîne maa lay wax nga activer cloche de notification bi voilà surtout nga like vidéo partage bu baax a baax a baax voilà gars yi nag tey vidéo tey bi nag choix la bi mooy ñaari manager yi ngeen ci Guardiola bi ak Xabi Alonso bi ban mooy choix ban choix ngeen war a def ak kan ngeen kan moo gën ci man d'après li ma xool li ma xool ak li ma ndiir man Xabi Alonso bi moo gën voilà déjà depuis il faut ba léegi gisoo leen gisoo goo leen bokk benn manager boo xamante ne voilà contre ñu xool contre rapide 88 déjà contre rapide de 85 la déjà je pense wala 87 85 bi instant bi bi ma jën man 85 la te loolu effet bu muy def automatiquement sa joueur ni ñuy yéegee tout nu mu gaawee voilà imagine mu nekk 88 boobaa jeu bi day gën a garaaw joueurs yi déjà dañuy bossé wu déjà loolu benn plus surtout boo yoree ay joueurs yoo xam ne ay moyens de vingt trois ay Pedri yi yooyu noonu voilà day yokk seen point expérience yi nga xam ne mooy yokk seen doole et tout mais surtout accélération ay ailier affaire yooyu noonu même latéral day yokk seen vitesse donc ces joueurs day gën gaaw et tout alors que Guardiola bi bon. Euh, Guardiola bii nii nii ñëpp presque moom ak beneen Guardiola benn la ñu xool voilà boo leen xoolee beneen Guardiola 88 la bii 88 donc ci man amul benn changement buy tax ñu kii surtout à part tenue de balle gis ngeen nii tenue de balle c'est-à-dire comme ay joueur mën naa ne ay genre Musiala ñoo xam ne seen tenue de balle dafa garaaw genre yooyu noonu lay am effet mais c'est pas grand quoi donc gars yi maa leen di conseillé bu dee voilà bu dee position ngeen joué mieux vaut nga dem jënd si manager foofu noonu quatre cent ay cinq cent soixante mille lay jar je pense GP nga jënd ko foofu moo gën voilà bu dee nag compte rapide bi nga bëgg dajaleel wala nga jënd ay pièces et tout yaay xool daal mais voilà nga jënd sabi alentour bi compte rapide déjà loo xamante ne day raar voilà am ngeen fi quatre vingt jours pour jënd ko donc c'est le meilleur choix affaire sabi alentour donc gars yi nag maa leen wax bu dee affaire bi intéressant nag boo leen ci gisee ay résultats voilà ngeen bi ma ko ci commentaire yi voilà jaajëf